ay la yewoon senegal Sénégal faaw rek mu jàppaat date ngir yu bi lekkool yi gune yi delluwaat ci seni classe ngir yeggali senum njang soxna ami Mbacké di dajou ministre de l'emploi de l'artisanat et de la formation professionnelle di wax nekkoon faaw rek nu weyel nimbali yóbbu ko ci yoy lekkool taxit mu dooroon ko ci privé Serigne Cheikh bi nga xamne ay jamono don na fi jange depuis li nga xamne si moy mbass mi ñuy wax coronavirus am muy yëkkati ko ay action jëmale ko ci askan wi donc cohérence la rek au départ bi mu jógee produits détergents yóbbu ko services les lieux publics mu am responsabilité boo xam ne dafa tegu ci kaw état waaye tegu ci kaw ñëpp l'école c'est l'école de la communauté donc l'école de la communauté pour la communauté et par la communauté kenn ku ci donc war see dugal sa loxo lépp état mënu ko pour permettre école yooyu de respecter les mesures barrières mën cee lim ay poubelles ñu mën cee euh, masques ay produits détergent omo madar au javel ñu mën ci lim ay gel lave mais, ñu mën ci lim pour certaines écoles même ay dispositifs lave mais semi automatique yo xamné jox nañ leen ko waaye li ci gëna am solo xamné ne jafe woon na lool ci euh, nit ñi muy thermoflash yi nga xamné si daanaka fu ñu jàpp jaar rek bay nañ ko fa. japp ci ak ay poubelle ak ay thermoflash ak ay détergent ay mouchoir ak bépp matériel bo xamné ay lave mais yo xamné ni dinañ ko soxla pour respecter les mesures barrières ak équipe pédagogie mëna a nekk ci jamm seen xel mëna dal euh muy liggéey pour Sénégal di liggéey pour la région de Diourbel di liggéey pour le département de Mbacké surtout pour la commune de Touba. acte bi soxna Ami def doon na loo xamante ne lii euh, sigil nañu trop ndox sox Ami mom mom bimu mu fi nekkee la ñu sigil parce que euh, li gëna neex ci élève nga diko di jàngal mu mëna a jàng. Euh, ba paré bu défé examen dal di réussir ñun en tant que enseignant loolu mooy satisfaction morale bi ñi am daf ñu ko jëkk jox fi à l'école euh biñ koy jàngal am nañ ci mom satisfaction ndax euh, mu ngi doon xam li ñu ko doon jàngal motax tax euh, elle avait réussi avec brio son examen. ci koor gi rek wessu lama ma mujj téléphoné ne ma fi mu toll nii yéen daal fas naa ngeen xam ni. man lépp loo xamante ne mm, mën naa ko rek eh, di ngeen ko gis. gannaaw privé Serigne Cheikh Khadim si ak délégation jot nañu dem ci yeneen l'école bokk na ci yooyee Al Azhar lycée bu Mbacké CEM Gaynde Fatma ak école mam Mor Diarra. yéen a ngi ci incité Al Azhar école Cheikh Mouhamadou Mourtada bi nga xam ne moo nekk ci ndaam eh, bagage yi nga xam ne moom ngeen gis tamit mu bagage yoo xam ne yu daara ji soxla la. Euh, soxna Mbacke mi nga xam ne moo nekk ministre Dame Diop euh, moo ko yónnee ngir liggéey bu tedd bi am solo bi nga xam ne moom la def fii ci daara tàmbali gi aajo ay jëmtukaay ak matukaay mu yónni woon fi bagage yi ngir ñi mën koo tàmbale liggéey bi kon nag euh, jëf ju rëy la def na ko ngir ne fii barabu yarukaay la waaye barabu sëñ Tuubaa la it tam xam ne moom taxawaayam ci barabu Sëñ Tuubaa ak barabu yarukaay nii la war a demee kon nag ci turu daara ji ci turu directeur général bi nga xam ne mooy Serigne Saliou ak Cheikh Mamour mi nga xam ne moom mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada ci taxawu liggéey bépp ñu ngi koy sant diw ko gërëm. Euh, ci turu parents d'élèves bi turu ki pédagogique bi turu élèves yi Mamour Diarra ñoo ngi kontaan ci madame ci def-def bu rëy bi mu def ci soxna. ami Mbacké dëgg yàlla kontaan nañ ci moom yaakaar naa bu ñëpp def ni moom Sénégal ci day dem ci kanam kontaan nañ trop lii am na solo lii dana tax brutalement ñu jël en charge les mesures barrières madame yàlla na la yàlla sàmm yàlla sutural kontaan na jërëjëf merci. soxna ami Mbacké ci geste bi mu def euh, pour le CEM Gaynde Fatma lii mu fi indi du matériel bu takku. Euh, vraiment ñu ngi koy sant parce que lii dinañu permettre déjà. li nga xam ne mesures yi nga xam ne war nañoo sàmmonteeg moom ñu gis ko ci procédure euh, de protocole sanitaire bi loolu vraiment dinañu permettre ñu ñu xeex ak jàngoro ji euh, fii ci CEM Gaynde Fatma. jamono ji jamono boo xam ne la nit ñi dañoo tiit. Mm. psychologiquement dañoo tiit donc lépp lu waay def rek dañuy renforcer ñun ñuy kilifa yi donc su ma yëpp motee ci man sama xel dal sama xelu élève dañu dal xelu professeur yi donc soxna si sant naa la baax. sant nag sama élève sama sama xarit xaadim eh, bi nga xam ne xaadim si laa ci mban la nekkoon fii yàlla def mu ñëw ci yéen nga ànd ak moom mas naa lépp daal ay waxee sant la jërëjëf yal na la yàlla suñ tuba leen waaw te jublu nii yal nañ ci jàmm fekk waaw lii daal dara na sama xel dara na xale yi li toftalu ci li nga xam ne soxna mi mbàkke jotoon na ko def gannaaw ba nga xamee ne jëloon na ay dund yu bare bari jébbal ko askan wi ngir jàppale leen ci confinement bi nga xam ne covid 19 waral na ko ci diggante tuubaag mbàkke